alkarimu aji tedd ja karimul asli ka tedd cosaan mi ata o ka joxe fondement yette mooy Muhammad teyit wax dëgg yàlla rang dinu yàlla rangale ngir barke Muhammad jar na ko màggal jar naa dagg sa cër sax du ko jox rang bi yàlla rangale jullit ni tereet ci maanaa taxaw fii Muhammad taxaw jullit di taxaw jar naa màggal Muhammad ba dee mooy lan yàlla nee na walillahi alizzatu wa li rasulihi wa lil muminin wal izzatu tedd nga lillahi ñeel na yàlla wa li rasulihi ak yonentam yi wa lil muminina ak way gëm ñi yàlla loolu ab julli mën na ko fay Muhammad bi tax nu am waaw tedd nga yàlla tedd nga Muhammad tedd nga gëm yi lan la ak naka la ak nu ma fan la ma dema wal izzatu lillahi alwalaayatu hunaalika alwalaayatu lillahi alxaq wa izzatu rasulihi alkifaayatu inna kafaynaaka almustansihin wa izzatu almuminina arrifaatu wa antum laalawna in kuntum muminina laalawna laalawna laalawna laalawna tedd nga yàlla mooy moom di moom lépp kenn dimbaloo ko ci nekk fépp am lépp di joxe di xañe alwalaayatu alxaq hunaalik mooy ajatullahi wa ajatu rasulihi nag sallallahu alayhi wa sallam alkifaayatu inna kafaynaaka almustafiin ñi lay yëg-yéeg ñi lay mbalee ñi def yëpp du jariñ dara naa la fekk ba kenn du la laal yow Muhammad man yàlla wa izzatul mu'minina arrifaatu wa antum yéen la alawna yéen a yoway kawe in kuntum ñoom nekk moom it way gëm yooyu ma ne moo tax yàlla ku màggal Muhammad màggal na ko ku ko màggalul màggal na ko ku ko teral teral na ko ku ko teralul teral na ko te nag fopp sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg dëgg waaw kuy mahabbatihi nasru sunnati wa dabbu an shariati wal iqtidaau bi siirati mu def sama maam foofu la pataxlu sooma foofu la potoxlu nee na sopp Muhammad dëgg dëgg dëgg mooy dimbale sunna su Muhammad ak dàkku shari'aam ak roy jikkoom looluy bëgg Muhammad mooy sopp Muhammad moo tax góor gi jeexal léppam ci Muhammad samaam ak jëfam ak jëfandikoom ak mbiram ak yëpp mu jeexal ko ci Muhammad lu tax waaye lu tax waaye Muhammad moo wax ni maxtuli tax xubbi bi qalbi ahadin illaa wa xarama allahu jasadahu min annaar bépp xol boo xam ni ku ko xar sama cofeel li ca biir xol ba yaram wa ëmb xol ba araam na sabar koo sopp da nga ko teral koo sopp da nga ko màggal koo sopp da nga def ci traaf sukk koo sopp da nga xare ci moom koo sopp da nga ko wuusi koo sopp da nga ko tàntal moo tax bu leen neexee yéen ñëpp ku sopp Muhammad boo dee demal dem
تعبيئا سنة المقتل تقتني ولك ضبط على حب النيل أمل ولك نبض سنة مغتاي بعقاني
waaye gàmmuwuma damay tëj bunt bi waaye gàmmuwuma waaye sama maam daal nee na walaysa nafaun déet njariñ ala xubbin ci cofeel bila amal ba àndula jëf njariñ la wut maa bëgg yàlla sama yoon ci diineem sama yoon ci li mu digle taati ilaha wa anta tudhiru xubbahu hada la amri fi lqiyaasi bad yow law kaana xubbuka saadiqan la ataatahu ina almuhibba liman yuhibbu mutiiu ne ni ko topp da nga koy topp war a maam bi walee ta nafu njël jëriñ ala xabin ci cofeel bi la amal waa lu leen jëf déet déet jëriñ amul yàlla wax na ko di jëf rek jëf rek wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanoo wa amilu salihati wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bis sabri jëf rek waaye jëf jël waay jëf rek moo tax sama ni wala sa nafoon jéem njariñ ala xabin ci joxeel bi la amal maa bëgg Muhammad sama yoon ci sunnaam maa bëgg Muhammad sama yoon ci jikkoom maa bëgg Muhammad sama yoon ci li mu digle ah ah maa bëgg yàlla sama yoon ci diineem maa bëgg Cheikh sama yoon ci tariqaam maa bëgg Laaji Malik sama yoon ci li mu digle maa bëgg Cheikh Khalifa sama yoon ci li mu ko joxoon maa bëgg Laaji Abdou Aziz sama yoon ci yim ciy roy du dëgg li ko bëgg da nga koy topp moo tax yàlla ni wala asri inna al insaana la fi xusri wala asri din naa ci tàkkusaan man yàlla inna al insaana naka doomu aadama yëpp la fi xusri ñu ngi ci perte gis nga al insaan yàlla na ko jamono mais ina l insaan la fi xusir ni mu rafal ko lu tax alu jën bu duggee jamono day wàññi si garaafam moo tax nga mën ko xabaree la mu faral ina l insaana damaa dem yëpp dugg mais la fi xusir ni dawoo kufraan xusir ni mu faral l'insaana di jamono lu tax da nga caa nar a seetee nag lam ci nar a seetee ca alja mu ne ila alladina amanoo illa la dina la gaa ñaa ne amanoo gëm nañu yàlla ñoom génn nañu ñoom perte ñu waaye bu tayam nag wa amiloo nañu jëf nag saalihaat jëf yiw buñ ma gëmee nañ jëf nag buñ tayam nag wa tawaasoo nañu mooy bil xaq ca dëgg buñ tayam wa tawaasoo nañu muñ nañu mooy bi sabi ci muñ ndax noo muñul dara dara la defee moo tax jaabir dafa ne Muhammad firil ma wal asri ina linsaan lafi xusri illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr ah comme ci moom la ñu wàcce alquran mu ne ko yaa Jaabir inna allaha aqsama bi axiri naheeri yàlla giñ na ci mujj ba cëg muy asri ina linsaan lafi xusrin abu jahlin wa maaho alladina amanu abu bakrin sadiq wa maaho wa amilu salihat Amadou Qatar wa Maodo watawaasoo bil xaq Ousmane ibn Affan wa Maodo watawaasoo bis sabr Ali ibn Abi Talib wa man Maodo. na fi usrin Abu Jahl ak ku mu àndal perte la alladina amanu Abu Bakar Sadiq a jëkk a gëm moo ku mu àndal fexe na wa amila saalihaat Amadou Qatar wa Maodo ñi jëf yiw amado xotoo maawo wa tawaaso bil xaq usman afaro maawo wa tawaaso bil sabri ali na bi talio maawo kooku déggal moo tax sama maam fab lépp jox Muhammad wax naa keroog ni dafa seet seet seet ni man day man Maalik daal lan laa war a jox alaaj lan laa war a jox Muhammad ab yóbbal waay man soo mirage soo sama bopp ak ñi ma am ak li ma am ñëpp jox Muhammad it du ko mat sëriñ du ko doy sëriñ
waaw xam nga nan laa war a def kii tam war naa ko toggal suukal ba ni ko kii sama qualité wala maa la ko galee mu ne ah kon daal walaysa li amalun alqaaka yaa amali ila almahabbat wa taadimi masalami walaysa li amalun alqaaka yaa amali siwa almahabba wa taadimi wa salami man daal Maalik man daal man Maodo walee si li jébbi ñeel ma amalum jëf te mooy yóbbal alxaaka bopp naa ko ma dee yow yaa amali yow sama yaakaar te mooy Muhammad seet naa yóbbal bu ma la war a jox ak tuutal bu ma la war a walal xamuma ko aha kay xanaa si wal mahabbati lu dul topp la wa taabini ak màggal la wa salami ak wa matu rek loolu waral daje lii te kat Xaaji Maalik lu ne wax na ko Muhammad jëmm jaag leer gaag ku ne jaag faal Muhammad ba doyu ko nag doyu ko dam ko defee mu julli ci ruuga ruuga julli ca xol ba julli ca yaram wa julli ca bàmmeel ba ni ko foofu laa mën a yem ma dema salli wa salliman na fi l arwaaxi rabbi ara ruuxi wali l misbaaxi salli wa salliman na fi l qulubi rabbi ala qalbi rida al xabibi salli wa salliman na fi l ajdaadi ربي على جسد ذي الإرشاد صلي وسلم من في القبور ربي على قبر البشر فنك سيدنا محمد نبينا كنز الورى بدر الهدى ممجدي ها واي كيف بقى محمد bañ ko ne ba xaaj lépp julli ko yow yàlla yàlla nga dolli xéewal ak mucc ci ruuh yi waaye nag ruuhu Muhammad laa wax li nga xam ne mooy làmp ji ndax bu du woon kenn du am waxal ko lax laa daatul anbiyaa li zuhurihi muqaddimatun taalam wala tanami fi aalami almulk wal arwaahu taabiatun lirruuhi wal jismi haadaa gaayatul karam wa rabbi ala waaxidi xalifa ni wal man xamal naa والمن حملنا إلهي رحمتان له مو سبب أمل ذات تبدا فاستيع
والمن حمانا إلهي رحمتان له والمن حمانا إلهي رحمتان برجنين والمن حمانا إلهي رمضان له مسبب أمدت تبقى تأيه nan nga dolli xéewal ci dolli gu wóolu fil xulóol ci xol yi waaye nag rabbi ala qalbi rida xolu ku ñu gërëm ka alxabib ka soppe samay Muhammad kooku laa wax salli wa salli ma rasul ajdaadi na nga dolli xéewal ak mucc ci yaram yi waaye nag rabbi ala jasadi di ihsaan yaakaar ni kii juble nga xam ne bu loo moom kenn du am bay jub kooku laa wax salli wa sallim man na bil qulubi quburi rabbi nag ala qadri nabi dëkk na nga dolli mucc ak wóolu ci xol yi ci bàmmeel yi waaye ne rabbi ala qadri nabi bashir yi bàmmeel ku ñu tàggata tey déglee sa tamit Muhammad waaye ci may baax kana sayiduna habibuna Muhammad. Kanzul wara. Badrul huda. mu ma jël. kooku ay sunu fan. kooku ay mooy Muhammad. kooku may ndàmbal mbindeef yi. may man la jiinu mbindeef yi. moo tax saa maam saa bàyyi ni ko. wal man xamal naa. ilaahi rahmataani lahu moo sababoon amal ga. ak tëbb ga fastayu ya. maanaam wal man xamal naa. yow mi boole yiw yi man xamal na loxatu suryaani yu la du arab suryaani yu la moo kiilu sundus miskaat san jadiil ak ibrahima façon yooyu daal dégg nga sof ci arabal leen ak muusaa ki yëpp muusaa muusaa muusaa dañ ko arabal rek waaye seen lugatu suriyaan yi la muu mooy firi garab seen luga saa mooy muu mooy firi ndox ci seen luga saa di firi garab ci seen luga kon ñoom yàlla Muusaa ci diggante ndox lañ ko fekk duñ koy for ak garab ñu ne Muusaa ñu arabal ko asa ci si tooy sax watte ko si soo ni Muusaa bokkul ak Muusaa bi firi paaka paaka wat paaka yu gudd yooyu ñuy lem te mu ñuul Muusaa la tudd si soo koŋ bokkul ak Muusaa bi firi fanatique xër bu ëpp ak yonent yàlla Muusaa mu ne nag rahmataani ñaari yéen dana yëpp nawoon ñeel na Muhammad muy ni'matul ijaad ak ni'matul idaa inda amal ji ak tëpp ji ma ne ko ma xalifa nun duna arab wala fu lan mu ne moo sooboon amal ga moom Muhammad ak tëpp ga amal ga di ni'matul ijaad تبقى بنعمة الإمداد ثاني فاستيرع فروية تيوان تعالى من الله بنوان محمد صلى الله عليه وسلم تاي تاي يدو تاي kita nga tayi ko nag waaye kita nga tayi kita nga tayi ba mën a nekk ba mën a wax ba mën a am waaye sëriñ bi kooku boo ko tëralee wax nga waay sama maam ni waxal ku lax laa bind gi yàlla bind bindee baasu leen la baasu leen diyaay ay yónni gi mu yónni yonent yi muqaddimatul ab yër la muqaddimatul ab nal la li zuhóori yi ngir na ma feeñu Muhammad fi aalama lu nu fi aalama lu te kat ab nal akub yër bu dee déggee yër ci lu koy walaf ak nal jékki-jékki ni jameet ni sëriñ daa ngi ñëw bëkk ni bu dëw dikk ni góor gaa ngi ñëw ni kilifa gi mu ñëw mu daw ni góor gaa ngi ñëw loolooy yër góor gi soog a yegg bu dee nal nag ñii ràbb na yoo ko xam la nga jëkk a tumb ca layu moo lay nal di ko topp ni muy wër ba lay du nag mu ñëw baasul waxal ko lax laa bind gi yàlla bind bindee fi baasu leen bi yaay yónni ki ma yónni yonente yi muqaddimatun ab yër la ak muqaddimatun ab nal la ak muqaddimatun li jiital la li zuhóor yi ngir na mu sëriñ sallallahu alayhi wa sallam fi aalim dut rek sang ba war a ñëw rek su dikk ni waa daa ngi ñëw rek képp du leen rek faalam xamal loole wala tanimi tebul xàggal li gën a gàtt wal arwaaxu yu yëpp taabiatun way topp lañu li ruuxihi ñeeru Muhammad wal ajsaamu yaram yëpp taabiatun way topp lañu li jismihi ñeel yaram Muhammad ca dëgg-dëgg daal yu yëpp topp sa ruux yaram yëpp topp sa yaram ca dëgg-dëgg daal haada lii xaayatul karami mooy dalee seen waay sangoo ba moo ne waay kon fa tabarakallahu képp ku fi ñëw bakkaar boo fi indi yàlla ko yàlla ci bu dee tiis yàlla denc bu dee jaaxle yàlla ko yàlla teggi te insha allah day am lëg soo baakaaram bu lekkee alam na ko gën a ne coy waay lëg bu lekkee alam na ko gën a ne coy xéewal gii ngeen am tey tuyaaba gii ngeen am tey ak defar gi ngeen am tey ku tax waaye bu leen ko may du ngeen nuwuñ di Cheikh El Hadj Malick mu jóge fi góor gi di ko diri di ko diri ba mu yegg fii ku leen ko may di seetal xarit mu jógee ko suñu way jur yu tedd bu baax yi ne di ko diir ba nëgën ku leen ko may waaye ku leen ko may waaye dama wax nii waaye waaye ndox garab lu mu mën nit yàllaa ko dàq waxumaa bi yonent garab garab lu mu mën dama nit yàllaa ko dàq garab bu ngeen ma laaj garab da nga fab sa ndox sa bañu waaru ndox duy ko teg taatu xay nga teg ko ca mu yond ba ngoon boo ko ñëwee mu wex boo ñëwee ndox ma mu wex te xay laalu ko waaye ndegam xaye mën a wexal lu te laalu mu ngi leen ma waay xay ndegam moo mën a wexal ndox te laalu nitu yàlla nag waaye nitu yàlla nag koo koy garab bi waa ndegam rab rab muy feewu feewu ak a ñooyu jooy moo mën a am ci barke nitu yàlla lu moroom mi rabam amul waaye julli bu gëm yàlla nag gis nga boo nee ci wàllu yàlla di kët kët ci wàllu yàlla te nekkul ca wàllu yàlla sa noon la dama leen bëgg na jox ki ni mag si buru bi nekk na te bari waaw
dama leen bëgg a piqué tey piqué bi ki ni mag bu kenn xel dal ngeen xam li ngeen am lan la ndax ku wuti yàlla ku ne ka wutiwul yàlla noonu Iblis ba mu génnee aadama aljana ba léegi ku jub yaag aadama ku dëgg yaag Iblis maa la ko wax kon bu la yàlla joxee ci yoonu jub nga ne ci lu sell nga ne ci lu xoor da ngay xam li nga am lan la te nga téye te bañ koo foye ma wax ne nag aw rab ma ni dam moo guma waay dama fekk ma budd rek astafurlah sama budd maa ak sama budd maa dama ni ni su amee lëpp dafay xam li mu am lan la te mooy ba ku dikki ni la leneen nga xam koo koy jaar ak noo koy jaar ak jaani dama ne ni laaj jaani aw rab buy feewu feewu ak a ñooyu ñooyu bu dee am ci barke borom xam-xam lu borom mi ne bam amul moo jur bu gëm yàlla waru la mën a lu ko ci war a am bu barax wilaaya ñu leen ma waay gaañ d'accord ngeen waaye leen ma rab bi waay waaye mooy xit niir waay waaye kuy xit niir waay xajoo am amul kër gis nga tax naa yoon buur la bu lakkale bu àllaw le dafa woo fóori yooyu ni leen dégg naa yéen a ngi jaamu beneen buur bu dul bi may jaam maa ngi tukki te ñëw su ma ñëwee te génn leen ci li ngeen di jaamu dinaa leen rey ñu waxtaan ni ah mbir mi kat léegi seere nag nañ jéem a rawale suñu diine ana ku ñu jëm xuru ak soof xam nga soofu kër si kutubu tafaasir yëpp kaw su la wax muy xun xuntu ba nan la tudd boo demee ci ruuxul maani ak soos la tudd page quatre-vingt-dix-neuf ci ruuxul maani ak soos kaw fu mooy xuntu bi waaye xuntu bi ak soos la tudd ñu jëm xuru ak soos ba ma doon fóore ñii ni juróom lañu xajjale juróom benneel ñii ni juróom benneel lañu xajjale juróom ñaareel ñii ni juróom-ñaareel juróom-ñaar lañu xaj na leen juróom-ñetteel waaye yàlla xam seen lim waaye nag bu mu yëkkee ci juróom-ñaar li wasaay bi nu sel bu waxul la def moo tax fóoree man ka daba yi ñooñu yëngal yooyu juróom-ñaar yooyu daal juróom-ñaar yooyu daal la ñu ëpp la ñu def am na ñu def sax yeneen gis nga xaj boobule téere yi wax nañu ni dana dem aljanna lu ko waral ba ñu gën a ñëw suure ya jëm ca xur ba xaj ba daleen ko ñu dàq xaj ba yàlla wax loo xaj ba mu ne ana uhibbu ahbaaballah ku bëgg yàlla bëgg naa ko bu la ma dàq maa ngi naan ñu ànd ak xaj ba ba ca xuntuma mu jël ca buntu xuntuma ba yàlla rey suure ya reyaale xaj ba ba mu leen di dekkal dekkalaale xaj ba gis nga booy faj dof booy faj dof wala ngay dindee xala ku ñu takk xala wala ngay duma ko la tooñ bind kóori yooyu te bindu turu xaj bi la nga def sa yàlla du baax ak dox it ni la tudd d'abord ta tànk bi ngay réyal la ngay bag da nga koy bag xaj soxla sa tànk te xaj rek la lu ko may lu ko may gaa yi xaj boobu dana dem aljanna lu ko may ci li yoon ci yàlla yuusufa dana dem aljanna lu ko may jël la waloon yoonu dana dem aljanna lu ko may Musa Jibril Suleymaan dana dem aljana lu ko may xorondoomam dana dem aljana lu ko may mbaamam Useyru dana dem aljana lu ko may xaaf man jote woon Ibrahima ci Ismaila ma nga aljana lu ko may gëlëm gi Muhammad waloon Makka muy Abba dana dem aljana lu ko may jënd waloon Yunus dana dem aljana lu ko may yoowu duggoon Namroos dana dem aljana lu ko may alburax nga aljana lu ko may aloon doom ndegam rab yi ñooy mën a dem aljana ci barke ku baax yow nga bokk ci xeetu Muhammad muy gën ci xeet ni ci diineem muy gën ci diine yàlla dugal a tariqa cheikh muy gën ci tariqa mu dénk la Alxaaji Maalik muy gën ci sëriñ mu jox la Cheikh al Xalifa muy gën ci xalifa mu jóge fi mu jox la Alxaaji Abdou Aziz yéen lu ngeen di wax bu leen neexee seen affaire dina baax bu leen naqaree seen affaire dina baax rek leen ci la ngeen rek kon fa tabarakallahu sant yàlla rek a waay waxaal leen alhamdulilahi rabbil alamin ñi ngi sant nag bu baax di ñaan yàlla ñuy sunu muun ñuy seen muun moom daal li sama baay wax daal moo ci nekk rek nee na kullu mriin yaxwi lmuna bi liqaihi waaye nag wa liqaahu yawman fa minhatu malik Sidi Aboubacar nee na ku dib jullit te ki demal alxaaji Malik sa mébét yëpp mooy yàlla naa dajeeg alxaaji Malik waaye wa liqaahu dajeeg alxaaji Malik yawman ci bés fa minhatu malik yi mayu yàlla la waaye coono yaram mooy yàlla la waaye du soono yaram da ngaa defal ni ñoom ñii def sa mbéymaa bi déedéet maa ni suñu sëriñ bii di sëriñ Makki ak Habib nii ak rakkam yii seen maam Omar Fuuti wax na def sa siiratu saxaaba mu ni inna laa staara ibaadahu almuminina bi fadli wastafaahum li maarifati wa jaala qulubahum maadina asraari wa talaa man shaa minhum bi maknuuni gaybi wa axfaahum am man siwaahum laa yaarifuhum illa man sabaqa lahu linaaya illa man sabaqa lahu linaaya Cheikh Omar dafa ni inna llaaha xtaara ibaadahu almuminina bi fadli wastafaahum li maarifati wa jaala qulubahum maadina asraari واطلع من شاء منهم بمكنون غيبه واخفاهم عن من سواهم لا يعرفهم الا من سبق له العنايه واو واو اها assemblée nationale assemblée nationale bu yàlla ah kenn du fa tànne loolu ci nit bi xaw raja sukuru wa sabru tawba zuudu tarakkulu ridan mahabba mahabbahu ilahu nag wastafaahu li xadati lquduusi wa jamaahu loolu tasawuf nee nañu bala laa yàlla tànn di la délégué da ngay ragal yàlla xawful ragal yàlla d'abord rajaaun yaakaar yàlla sukurun sant yàlla sabrun muñ zuhudun dëddu tawakkulun wakkilu ci yàlla ridan gërëm yàlla mahabba sopp yàlla